Euh, ma dégg nag ci wewu nag ne mask yi benn bu ci nekk mi ngi ko jëlee woon 300 euh, francs tourné ñëw ñi nga xamante ñun ñi nga xamante ne ñooy confectionné masque yi mu fay ñu benn bu nekk 100 francs xamal nu ñu ne moo jënd tissu moo fay li dagg tissu yi moo jënd élastique loolu tey ñun si ñun boo ko xayma fukki dërëm ak ñeent maanaam boo bëggee xool masque bu nekk tissu élastique bi ak euh, bien vrai que sama entreprise Il faut que la même si vous dañ ko arrondir 100 francs par masque 400 000 masques c'est 40 millions Si vous 100 francs par masque 400 000 masques c'est 40 millions encore deux fois 40 millions c'est 80 millions 80 millions si les masques, masque ya les 300 francs c'est 120 millions kon a 40 millions yi dañuy laaj rek pour bu passé euh, le monsieur le président daal di yëkkati une euh, enveloppe alloué secteur artisanat maanaam yi woykat yi tëggkat yi ba les créateurs ñun ñu millions

Euh, yeneen euh, membre ci biir fédération bi am ci ay jafe-jafe yu bëree bëri ci kenn du woote assemblée générale xaalis bu dugg du ñu xam fu mu duggee du ñu xam kañ la génn parce que nag euh, président mayoon nañu vingt millions bi mu ñu recevoir ci tàng-tàng ba ñuy génn yëkkati na quatre millions teg ko pour passe mu desoon seize millions seize millions ya dañuy laaj ba léegi fu mu mujj. ñun gisaguñ ko te yëgaguñu bëgg nañ nag mu leeral ñu ci 16 millions yooyu noonu ana 16 millions yi ak bu fekkee daf ko dépensé mu wax ñu fan la ko dépensé ak ci euh, waaw ñan la sukkandiku pour def dépense yooyu noonu suñu revendication c'est très simple leeral lañu soxla ba pare clarté lépp ñu jël ko teg ko sur la table kenn ku ci nekk li nga xamante ne mooy sa yelleef ci biir fédération wala euh, biir association bi ñu jox la ko parce que vous faites un taille, ce secrétaire général du yëg mon trésorier diaspora du ben membre bu ci Vous bureau du dugal comme avez un Parce ngay vous sax un instant ou euh, euh, la parce que nous, nous mel un ni def nous dans un premier temps euh, ñu ngi woo monsieur le président de la république suñu ministre de tutelle Ofnak, ñu def ay taxaw seetlu ci li nga xamante ne ni moo xew ci fédération SECAS et demander à ce que assemblée générale bi ñu taxawal ko dem ci ay renouvellement bu ñu demee assemblée générale bu fekkente ne membres yi nga xamante ñoo nekk ci bureau bi ak ñi fa mëna a té ñu def ko nak ci euh, lieu bu neutre pare wuñu pour dem di ko fekk ji complexaria comme nañ ko daan defee parce que nag am nañu fa dem jamono yële passé dafa leen dàq ci biti xamal lenn fii sama kër la